علم كما لم تكن تعلم وثلل الحق من الحق المبين لي قاد ما بنا وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلقي lam yanu zaati jalibu nirani aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki ngi leen di nuyu di leen ziar gannaaw biñ ci jiitalee cheikh mohamadul muntaxa xalif général des mourides di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wér di toftal ci nuyo bi ak ziar bi cheikh abdul aziz mbàkke moom sëñ xaadim awa di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi lool te ànd ak wér yàgg ñoo jiite liggéey bi kon nag jotaay bi bu ngeen ko gisee xam ne seeni mbokk taalibe yu daayira Diawartoulah Paris ñoo ñëwaat ci niñ ko daan defee di yëgle cant gi ñuy amal saa su ne ko amalee ren ji ci samedi 13 mai 2023 ci 15 rue Ferdinand de Lesseps à Grigny dans le 91 kon nag niñ ko daan defee saa su cantu ren gi danañ fa incha allah danañ fa dundal alxuraan yëkkati fa xasida Serigne Touba yi yëkkati fa zikrullah incha allah ànd koog bokki taalibe yëpp boole ci bernde yi ñu daan def comme chaque année su ko defee ñu bokk ko waajal fas yéene ci sant suñu borom sant ci Serigne Touba di ñaan sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér di dolli ñaanal sëñ Abdoul Aziz mi jiite liggéey bi ci Jaartulaa mu yàgg fi lool te ànd wér te mbooleem li nga xam ne sumb ko ci liggéey bi te yéene ko suñ borom maye ko mu mottali ko keem li nga xam ne noonu la ko soobee xam naa duñ def lu dul rek jox kàddu gi suñu magum taalibe suñu jëwriñ sëñ Birane Seck mi nga xam ne moo ñu yàgg a ci liggéey bi mu daal di woote woote gi mu def jëmale ko ci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 cant yi nga xam ne moom laan daan def at mooy di di waaj a yegg si moo tax ñuy fas yéene yégal képp koo xamante ne murit nga tan fasante gi yéen kóllëre ak pas-pas fii ci dëkk bi ñu nekk muy Paris moo waral ñuy sunu jotaay bi di ko yégal nag mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp ak sunu mbokki jullit yi nga xam ne ñoo fi nekk muy daayira yi ñu ngi leen di wax ne cant gaango comme nañ ko daan àndi defee rek xam ne lépp ñoo ko daan àndandoo di ko defandoo fii ci Paris di ñaan suñu borom wéral ñu kàttan ñu ba ñu yeggee ko bu ko defee ñun ñëpp nañ ko daan àndee ñu ànd rek ci màggale bis bi muy alxuraan ak xasida ak bernde ak waxtaan fa mu loo xamante ne day jëmale suñu dund ak dundal ak suñu réew kon nag yëgle gi daa mun ta ñàkk sax waaye ñun xam na ne boo leen ko déggoon feneen tamit du tey di ngeen teew. ndax ñooy àndandoo defandoo lépp fii ci réew mi di ko di di jàppante kon nag bis baa ngoog ko yëgal di ñaan suñu borom bàyyi ñu fi bañ yegg sax jàmm ba yéene gi ci am yëpp muy ngërëmu sëñ bi suñu borom defal ñu ko ñu ñëpp ni daje ak di santaat baax asalaamaaleykum wa rahmatullah liman la qudratu wal irada bismillah barkeb sëriñ bi barkeb su maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi siyaar mbokk taalibe yëpp rek di jiital si siyaar gi sunu kilifa sunu sang sunu waajur di sëñ Abdou Aziz Khadim Awa Ba di ko ñaanal saa borom yàggal ko fi lool ba mboolem naal yu mu naal rek fas yéene ko liggéeyal maamam ju baax ja ak sëriñ bi maam mu amee ko nu mu ko bëggee waaye ànd koog ñun ñi taalibe Euh, gannaaw loole yi tamit di santaat Sëriñ Tuubaa baax a baax a baax ngir teewaat jotaay gi di di leen yëgal maanaam cant gi nga xamante ni daara Diawartoulah am na yéene sant ko Sëriñ Tuubaa te di ko defee maanaam saa su nekk rek maanaam waxtu wi ak jamono ji di si woo mbokk taalibe yëpp rek nag mu mel ni sunu pàcc bi nga xamante ni moom la ñu dénk mooy liggéey bu jëm si suñu mbokk taalibe euh, kuréel yi ak sunu mbokk taalibe Baay Faal yi kon mu mel rek sunu limee kuréel yi lim nañu mboolem kuréel kon nag fii si biir Île-de-France ñu ngi woo waa kuréel Touba Aulnay di woo waa kuréel Touba Taverny na ko noonee di si toftal waa alxijaratu waa kuréelu bustaan si wooy tamit maanaam waa kuréel Touba Créy comme nin ko maasee gisee rek moom kuréelu Île-de-France yi mu ngi yokk lool lool lool kon nag su ko defee ñu ngi woo kuréel Hizbut Tarqiyyah Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddoos ak Hizbut Tarqiyyah HT ak ndongoy Sëñ Saaliw Euh, naka noonu tamit di si toftal waa suñu taal bi yi nga xamante ni daanaka moom daar ji genn la muy waa Jaalibatu ñu ngi leen di bu baax a baax a baax te xam ñu xam ni bés bi seen bés la di si woo tamit suñu mbokk Baay Faal yi nga xamante ni maam ñu ngi ñu ngi saa su nekk rek suñu amal bés bi dañuy jàpp si liggéey bu baax a baax a baax di jàpp tamit si liggéey bi nga xam ne moo jëm si kalimatullah bi kon ñu ngi leen si woo baax a baax a baax a baax di tuubalaat bu baax mbokk taalibe yëpp rek day santaat Sëriñ Tuubaa waaw kon di wàcce foofu kàddu di wax wasalaamaaleykum نفعني الذي حما وبكم لم ينهي له ونعم الحكم إيجاد كل ممكن وترك أجز من كفاك فضلا شرك بسم الله الرحمن الرحيم بارك برم توبا السلام عليكم ورحمة الله mbokki jullit yi mbokki taalibe ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di jiita ci nuyoo bi ak ziar bi suñu kilifa Cheikh munta Bachir di ko ñaanal fan wu gudd mu ànd ak wér di jël nuyoo beeg ziar bi di ko teg ci loxo suñu jëwriñ suñu kilifa sëñ Abdou Aziz Mbacke xaatim awa ba di ko ñaanu moom itam Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. jotaay bi li ko waral mooy dañoo amoon mooy dañoo amoon yéene yeggale bés bi nga xamante ne moom la daayira Touba Diawartoulah pare di amal at bu nekk muy bésu cant ni yoonu murit Euh, santaane muy maanaam sant yàlla ak sant sëriñ bi bés bi nag ñu ngi ci wo ñëpp di ci woo mbokki taalibe yëpp ak mbokki jude yëpp rawatina suñu mbokki soxna yi di sàkku seen teewaay di leen xamal ni nag képp ku dégg kàddu yi ak fu waay mënti nekk na nga xam ne kàddu gi mooy kàddu soññee gi ak kàddu yëgal gi waaw bés bi nag bésu la bésu jaamu yàlla la donc ñëpp dañoo war a teew incha allah rabbi ñu ànd sant Serigne Touba. ci xéewal yu yaatu yim ñu defal di gërëm nag ak di sant suñu mbokki soxna yi nga xam ne daan nañ taxaw ci at yi weesu taxawaay bu rafet ñu leen di ñaan nag di dagaat ci ñoom ñu teew ngir ñu ànd defaat ko nuñ ko daan defee di leen ñaan nag lépp loo xam ne daan nañ ci def benn ren ji ñu yokk bu mat fukk incha allah rabbi di leen santaat bu baax a baax di leen ci suñu bés bii nii bu neexee yàlla jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 sous euh, l'égide de Cheikh Abdul Aziz Mbake, vous convie à la 12e de la Journée de grâce qu'elle organise le samedi 13 mai 2023 au 15 rue Ferdinand de Lesseps à Grigny dans le 91. Euh, donc à l'occasion de cette Journée de grâce, comme chaque année, nous marquerons la journée par la lecture du de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim

Nous aimerions aujourd'hui vous faire part du chant du Daara Jawhar de la Paris qui aura lieu le 13 mai, Inch'Allah, sous la présence de Serigne Abdou Maki Khadim Aouba. Cette journée sera principalement dédiée à la glorification d'Allah et euh, à rendre grâce à Serigne Touba Khadim Rassoul. Dans la journée, il y aura la lecture du Coran, la déclamation des Hassides et diverses conférences. Nous vous invitons ainsi à venir partager ce moment avec nous, plus serez là et que on compte sur votre présence du début jusqu'à la fin du chant, Inch'Allah. dellu ñaan fal Sëriñ Abdu Asiis yàgg fee la la yàgg fee la